internet yu seen sedi tv maa ngi leen di nuyu di leen a jaajëfal di rafetlu bu baax a baax ni ngeen di àndee saa su ne ak sunu ay programme te seen rubrique décortique série famille sénégalaise épisode 105 la leen andil ñu door ko ak séquence bu njëkk bi ñu gis ni euh, soxna Batoor moom nag teggiwul tànkam benn yoon ba tax na nag mu daal di woo ki nga xam ni moo di Lamine euh, ngir nag euh, créer histoire ngir jaxase ko ak jabaram mu mel ni nag ki nga xam ni moo di Lamine da koo rek teel a gëm Bator li muy wax dëgg la ba tax nag mu daal di mer ba fut mu mel ni kon soxna Bator euh, mën nañu ni ni seytaane sax moom moo ko tane ndax euh, moom euh, li muy def yaakaar naa sax bu doon seytaane la sax dina ko doxalee neneen waaye moom amu ci lu muy rus wala nag lu mu ciy seet lépp loo xam ne mën na ko def ngir mettre ñeneen ñi rek ñun bañ a nekk si jàmm moom da koy def ñu jàll ci Mariatu Mariatu nag moom mi nga xam ni gis na Bator ak Lamine loolu nag da koo jaxase bu baax a baax ba tax na nag jaaxal ko waaye nangu wuccee wax ak jigéen ñi waaye nag mujjee na rek woo ki nga xam ni moo di ngóone ngir rek daal di waxtaan ak moom ngir xamal ko rek mu daal di euh, def attention ndax xam na ni su gisee batoor ak euh, jëkkëram di ànd kon am na rek batoor lu muy waajal ñu jàll ci moom euh, sagar sagar nag moom gis nañu ni dem na daal di affronter batoor nga xamal ko bu baax a baax que ni rek na génn ci sëyu ki nga xam ni moo di magam mu mel ni moom sagar puisque yàgg naa fréquenté ki nga xam ni moo di batoor tax na nag lépp xam ni batoor góor mi ngi koy euh, manigancé rek moom da koy daal di euh, comprendre euh, ba tax na nag muy daal di wax ak moom waaye ki nga xam ni moo di Batoor dafa weddi ni rek moog Lamine gisee nañ ba tax nag mu dem di kalaame Mariatu ci maar di ko xamaat rek ni li Mariatu wax dara du ci dëgg ba tax na nag ki nga xam ni moo di Mariatu bëgg rek fippu ngir dem daal di koy affronté waaye ki nga xam ni moo di maar nanguwul lu ni mel ndax maar jamono ji li mu bëgg mooy ñoom ñëpp ñu daal di moytu Batoor ndax xam nañu ni Batoor problème rek la bëgg waaye Mariatu nag moom eh, gis nañu ni léegi dafa soppeeku bu baax a baax ndax nooy neex la ko soxna Bator jàppee woon waaye tey nag taxaw na ngir wane rek ni am na lu muy bañ tey nag ru nangu rek ñu koy eh, sosal wala nag di ko ñàkkal fay da benn yoon ba tax nag mu dem daal di affronter eh, Bator ngir wan ko ne ragaluma la mu mel ni kon Bator xët-xët gi moo bari rek ak wax ji waaye nag koo xaw rek daal di dëggal sa bopp mu daal di reculer ndax fit gi nga xam ni mu ngi koy wax ci moom moo di Lamine Lamine nag moom euh, gis nañu ni nag li xew euh, da koo jaaxal bu baax a baax ba tax na nag xamul rek fan lay teg tànkam li ñuy wax nag seytaane waxul dëgg waaye yàq na euh, xel loolu nag moom rek moom moo dal ki nga xam ni moo di Lamine ndax liñ ko wax ci jabaram rek tax na mu daal di commencé am ay doute ba ci xalaataat loolu nag day wane rek fiir bi nga xam ni góor fiir na ko ba tax na nag ki nga xam ni moo di Batoor li mu def yaakaar naa rek mën na indi problème ci ki nga xam ni moo sëyu Lamine ak Ngone ki nga xam ni moo di Ngone itam moom heureusement ba Mariétou wax na ko li nga xam ni moom moo xew te it nag Mariétou conseillé na ko ngir rek xamal ko ana ban rek euh, posture la war a jël ci euh, mbir mi ndax yaakaar naa xët-xët fajul dara ndax la fait nga xam ni moo di Lamine nëbb ko ni ko ci bateau la doon dem rek loolu problème la waaye nag moom mi nga xam ni moo di Ngone itam euh, jëkkëram instant yi liñ ko wax problème la mu mel ni kon diggante Lamine moytuwul euh, problème dina ci am ndax yaakaar naa ni rek soxna Batoor du bàyyi benn yoon mook yaayu Lamine euh, lépp rek lu ñu mën ngir tàggale ñaar ñooñu dinañu ko def kon mbokkeen tanoot yi fii la ñuy yem ci épisode 105 bu seen euh, famille sénégalaise ñu jox leen dig daje si beneen épisode waaye laata boobu wéyal leen di abonné ci seen série TV te bu leen fàtte bës si cloche de notification bi pour ngeen di jot suñu vidéo yi à temps réel jërë ngeen jëf